te équipe nationale bi à coupe d'Afrique Afrique bi ñu demoon am benn jour bu doon suy suy avant chaque match bi heureusement suñu mise en train lañ ko doon def donc du doon nek en direct ci télé pour te dire que nuñ ko gëmé mais lu gëna graw nak mom moy lolu mom je tiens à le dire té sama coup de gueule lay nek mom moy li nga xam ne ñu ngi koy def ci biir tàññeer bi liggéeyante bi dafa ëpp so gisee jëluñu coupe d'Afrique xam nga yàllaay maye sax parce que yàlla moom su ñëwee kenn mënu si dara mais ren man amna ay information yu ma yu ma am yi nga xam ne dama ko parce que rek ci compétition lañ nekkoon muy le cas Mbaye Niang di avançant équipe nationale Mbaye c'est vrai que football réussite la amul réussite mais Mbaye Niang ba mu démarré coupe d'Afrique bi amul réussite il a commencé à se poser des questions parce que su ñom bi nationaux yi su ñëw équipe nationale dañu leen wax dañu leen di ak yoy quoi donc jour bu mel non ñu war ko protéger mais mu dem bañu dem si biir coupe d' bi na jour entraîné wul tax entraîné jour fa am lu donc so demain ba gis ni tamit euh, euh, euh, jour bu mel Amu doxul sept match mbay deful dara mu ñew gis loolu tamit du, kiko ça prouve que nous. li nga xamni peut-être dañ ko mais defal pour équipe bi mais de là à à faire affaire bi nga xam ne jour bi nga xam ne si lañ moom la ñu à côté de son tournoi tey l' échec de Mbaye en équipe nationale c'est est l' du Sénégal parce que Mbaye Niang s' il était performant euh, am réussite du dugal mais kooku Sénégal moo si gagné donc man loolu je tenais à le dire parce que campagne bi yëg naa ko mais man fait fu dem en tant que journaliste d'abord demain assure un en responsable sama responsabilité moom moo taxone ba mu ko yëgee équipe baa ngi joué di gagner duñ ci wax dara mais campagne bi jeex il faut ñu waxo ku def loolu tamit xamni ni li nga def nit ñi xam nañ ko pour beneen yon tamit bañ ko def ñi nekk tamit ci biir tanière bi xam nañ li fa xew ñun xam nañ li fa xew nañu jema out ay safara par rapport à ça parce que tamit nit ki waro jël intérêt individuel sa intérêt personnel au détriment de l'intérêt du peuple parce que le peuple doit primer le Sénégal d'abord comme ni ñu ko waxe mo war primer Euh, euh, si lépp loolu moom man dama koy ñaan parce que yàgg na fi am yàgg na fi am yàgg na fi am mais muy dem muy avancer tuuti ñuy gën a civiliser di ko kii mais pour cette fois si cas boobu am na muy lu may déplorer donc affaire xon daal war nañ ko xoolaat bu baax xam nga fu xëccoo am fu alal am fu succès am loolu mënu si ñàkk mënu si ñàkk ay def ay affaire pour kii mais de là nag a def ko ki nga xam ni yéen a bokk équipe bon euh, euh, ndamam sa ndam la mais lolu mom mo grave man lolu la mënul comprendre jour bu mun def dara pour gëna performant il y' a pas de problème jour bu mun def dara pour équipe bi gëna performant il y' a pas de problème mais jour bu def dara parce que peut-être que qui euh, su doxé man peut-être du ma jouer ay affaire yoy man boobu la munul la la la comprendre té lolu laay dénoncer lolu mom amul ma sam amul ma demba dafa am té yàgg na am si équipe bien ah na am. peut-être que bii feeñ na nii bon ñun am na ay journalistes yu nekk au courant de ça donc man amoon naa information bi am na tamit euh, mais équipe nationale am na ay joueurs yi nga xam ne dañuy daw ay yenn joueurs yi ndax ragal ragal leen dañ leen ragal dañ leen di daw comme dëmm ragal ay joueurs di leen daw comme dëmm parce que dañ naan kii su ma ko jegee mu def ma li am na fa mais loolu tant que mu ngi yem entre ñoom ñu ñuy kiiwante amul problème mais comme lii nii nii nii nii nii

ba loolu jóg ci équipe nationale parce que tey